aleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baloo ak si weeru koor gi di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jégal te nangul ñu suñu koor tey nag Talla Ndiaye daa am ku ñu seet si fas yéene def ak moom ndogu ak Leewtoo maanaam ndogu ji ci Leewtoo ci biir làmb ji xale la nag mais làmb dañ ne ki am licence tey ba ci roi des arènes ñëpp ay mbër lañu te yaa ngi dégg li ma lay wax taala mooy que ni ah mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk waaye nag dañuy ànd ak tamit ak Ecotra ba tey mu ñuy gunge ci pañe bi sax ndogu rek ñu ànd ak Ecotra ci nekk waxoon naa dugg naa ci kër buntu kër bi sax jarul kii mais nag dugg naa ci kër waaw tey bu ma ah waaw. man de kii ma teeru taala Ndiaye. waaw waaw waaw. le waaw maa lay fay ba naka ma yaa ngi gis nga naka ma affaire kii nag laa seet si olof Ndiaye nag ñoo ko wax. Eumeu Sène ni mu nekk roi des arènes Yékini nekkoon ko Bombardier nekkoon ko. ñii noonu la ñuy koy rêvé nekk moo tax ñu boole leen ci biir li ñuy def 100 pour cent lamb ak Leewtoo naka koor gi. waaw koor gaa ngi nii di metti rek Babacar. waaw di waajal ndogu. rek bëgg ñu gaaw rek xamal balaa may. gërëm kon taala ñu xool lu ñu tegal. xaaral léegi lii nag man bi ma duggee lii laa njëkk a jàkkaarloo lii moom sa waay moom mbaxanaam mi. góor naka yëngu yi. rek am nga jàmm. waaw am naa jàmm bu baax. yaa sol sa noir sol mbaxana. lépp si kii bi rek si ndogu bi rek. waa lépp si ndogu bi. ba tey rek yow yaay kan tur bi. man lay Xalil. Ah? moom bañ mooy sama doom ndey mooy sama lépp. Uh-huh. waaw moo tax tey kii de xamoon naa ko. waaw sëñ maa ngi lay ziar bu baax a baax. am nga jàmm. waaw maa sama doom la waaw ku baax. Uh-huh. yéen a def waa ñu gis ko di waajal rek a jàkkaarloog yéen rek. en attendant li ci des. waaw en attendant ñu dal di jàkkaarloog yow rek yow. yaa ma taala nañ toog te dogg. waaw na dog jot na ci Ndakaaru. waaw jot na dogal sa koor. Talla Ndiaye moom day xaar. Talla moom dañ lay dañ lay ah? <laughs> yi kaay leen ñu ndog yéen ñu suivre Leewtoo TV. ana xujja xujja de moom mbaxanaam la sol. waaw yaa def lii ci palaat. waaw ñoo def lii. lii nu mu tudd nii. <laughs> waa lii de poulet lañ leen defal nii tey rek. waa poulet. poulet avec frites lañ leen defal accompagnement waaye xoolal lii man taala taala est-ce que xam nga naa ko def dëkk ba su ne am na ñu lay jàppale Grand Mbagnick nag ñii ñoo koy dooleel ak ñi nga gisul ndax li mu yor ci fan sama ma lay supporter naa ne daa am ñu ñëw rek sëñ bi loo ma mën a wax si ci lu tuuti ak seen diggante waa grand sama rakk la sama rakk lu baax la waa champion la ñu ngi ci ginnaawam waa di ko jàppale waa di sant ci moom nag roi des arènes di wax làmb ji am nañ am nañu gan am nañ gan waaw hmm. waaw jërëjëf Babacar di jaajëfal waa Leewtoo TV euh, seen liggéey am na solo te li ngeen di def nii ñu ngi leen ciy ñaanal bu baax mu jëm kanam euh, di wax rek ne mbër bi moom euh, champion la te ñun xam nañu champion la moo tax ñu fas yéene boole suñu un li tubaab di wax le peu de la réussite de ñu boole la ñu am ci suñu doole ci suñu am am ci suñu taxawaay fas yéene koo jàppale parce que xam nañ am nañ yàqin ne roi des moo nekk suñu kanam di wax rek waa làmb bi nañ ko bàyyee xel bàyyi parce que champion la mën na lu muy def te au delà de lu muy li mu mën ci làmb bi dafa social dafa bëgg nit te dafa bëgg mboqam quoi moo tax ñu fas yéene jàppale ko euh, fans club bii ñi nga gis ñu ñoo ci gën a tuuti fépp foo dem koo dégg rek day naan grand Mbagnick bi bëgg naa ko te fas yéene naa ko jàppale donc ñun ñoo ci fas rek di jaajëfal ñëpp di kontaan ci yéen bu baax. jigéen jigéen bi lu tuuti rek nga wax ma yow sa diggante grand Mbagnick parce que li jara wax moom waa Bawol la te dama koo gis tamit mu jaxasoog waa Sine bi trop trop jige secret bi lan la. waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp. xoolal micro di sunu nit. ñuy dem mbapat di ko seetaan. moo tax ñu ñëw do jàppale ko di ko dooleel di ko defle defle lépp. waaw. loolu waaw waaw ubbi ma ubbi jigéen ñi nag damay béréngu rek ànd ñoom. <laughs> maa ngi lay fay bu di nuyu gars yëpp ñu teew fi yëpp waaw sama fan si nekk fii yëpp maa leen di gërëm di lee sant di ñaanal ñëpp jàmm si weeru koor gi ñu nekk xam nga di baalu ñëpp ak di baal ñépp ak di nuyu président bi fan si club bi Baba maa ngi koy nuyu bu di nuyu Tata Mbayang Fall ñoom Ndey Njoor Tata Xuja gars yëpp Mariama Coor Maymuna ñoom Jiga gars yëpp bàyyi ma kenn ñoom Ale ñoom Modou mbay gars yi bàyyiwuma kenn ñoom Doudou sama grand bi ñëpp ñoom Bilal nu ñoo xam ne dañ dañoo bëggoon a ñëw jàpp nañ si affaire bu baax te xam rek te ñëw nekkuñu fi waaw lu mel ni sama sama yaay bu nekk fële Mermoz maman Ndeye Marème Fofana maa ngi koy nuyu bu baax ak aada bu nekk États-Unis maa ngi bu baax a baax tamit di ñaanal ñëpp jàmm daal li la daan kontaan naa si affaire yi xam nga euh, kii jóge fii léegi Assane ak euh, kii El Hadj nekk euh, boulangerie bi nekk Tëngéej ñooñu jàpp nañ si affaire yi bu baax a baax ñoom waaw jàpp nañ si bu baax baax waaw. grand yaa ngi woor. waaw maa ngi woor waaw maa ngi. ñaata fan lañ am ci koor gi tey. Ah, man de am naa sept jours tey moom. juróom-ñaari fan. waaw man lundi laa woor lundi. Ah, lundi nga quoi. ñu jàngu alxuraan. jàng na alxuraan tuuti rek pour am lu may jullee quoi. loo man a wax ci li ngay jullee la ci alxuraan loo ma ci mën a taril. man mën naa faatiya de. faatiya moom <laughs> ah grand faatiya ngay jullee. ah mën naa faatiya ak kul fa waaw ak ay yeneen aaya yoo xam ne mun naa leen di jullee quoi waaw. képp képp ngay jullee. déedéet ak am yu si tegu. waaw yu si tegu laa bëggoon kay nga cofal ma ci. waaw mun naa rahman mun yaasin. rahman alamal quran. waaw alamal insaan alamal qulubayaan. mun naa ko ba mu jeex de waaw. waaw. ban daara nga doon jàngee. dañ ma koo jàngal rek dama doon jàngantu nii rek xam nga ba mën ko waaw. mais grand fan mooy origine fan la soqeekoo ci réew mi di Sénégal. man Mar laa dëkk Mar Fafaco laa dëkk région de Fatick waaw dans les îles du waaw. bi ngay nekk xale foofu daan nga war waru gàlle. man waaw daan naa war waru gàlle moom man yàgguma sax woor. lu tax yàgguma sax woor de am na ay daaw ay ren dinaa commencé woor normal nii sax mais mosuma koo faraatal de. Ah. waaw. mais bi ngay war waru gàlle nuñ la doon bi ko defee nuñ noo ko doon defee ak ku la jàppoon. ah man xanaa xanaa sama rakk bi rek zil xam nga moo ma doon bu ñu àndoon àll ba nii xam bu ñu demee rek ma doon yóbbaale lekk xam nga su ma demee rek di lekk bu mu ñëwee keroog bu ñuy ndogu noonu rek mu beer bi di seddalee mbuur yi quoi mu nekk yi wooru loon da doon lekk àll ba waaw waaw daal ma wéeje quoi. <laughs> mais daaw nga ne nga commencé wor wala ren. waaw daaw ak ren. loolu yoon la. daaw ak ren laa commencé wor noonu. Ah, foo teg loolu yow it nag. Ah, xam nga rek mënu ko moom dëgg dëgg xam nga gars yi moom mooy loolu te yenn saa yi ñoom zilmi bu ñuy bu ñuy xëdd quoi duñ ma yee nee na su damay damay xëdd ba pare du du ma du ma te subaa du ma woor. nee na damay jeexal seen xëdd bi. ah moo tax ñu lay sis ci xëdd bi. billaay walaay loolu lañ may def waru nga jënd sa xëdd dencal sa sa bopp sa bopp yow. ñoo li muy toog moo moo mooy neex. boobu bu ñuy xëdd sax duñ maye yee. bi daf may métti trop sax. billaay ne yaa ngi woor nii actuellement. waaw instant maa ngi woor quoi maa ngi woor mais instant mënuñ maa raw de bu ñuy jóg fajar rek ma jóg. da ngay régler sa billaay loolu la de noonu laa koy defee. jullit buy woor lu ko war. non julli di woor kay da ngay woor rek di julli waxtu yi kay waxtu bu la raw rek xam di bañ li yàlla tere rek li yàq koor rek nga bañ koo def waaw ko xam nga rek yàlla moo ne koor koor la gën a fonk si weeram yi waaw muy weer boo xamante ne onze mois lay onze mois la maye muy benn koor benn weer muy douzième mois bi mu koy may rek nga xam ne xéewal yëpp fa la nekk comme da mën mën koo may suñu borom rek waaw waaw bàyyi lépp loo xamante ne da koo tere lu bon rek ñu bàyyi ko waaw Graff euh, kañ la dugg si làmb man 2012 laa commencé bëre foo njëkk a bëre man man mar laa njëkk a bëre nag suñu dëkk. tournoi la woon wala. waaw tournoi la woon foofu la. nga lan. non dañ ma daanoon demi final. dañ ma sama premier drapeau dañ ma daan dañ ma daanoon demi final. mise ba ñaata la woon. poussière la woon vingt cinq mille lañ tegoon si poussière yi. jàpp ngi euh, la daan jàpp nga ko. waaw jàpp naa ko waaw ki ma daanoon suñu dëkk la dëgg sax Bas waaw suñu dëkk la waaw non non dem na Espagne léegi. Euh, bëreetul waaw. arène kañ nga ko njëkk a bëre. arène maa ngi ko dugg deux mille deux mille seize deux mille seize waaw. 2016 la 6 victoire. 6 combats 6 victoire. waaw. macha allah loolu dinañ ci ñëw <laughs> gars yi tàccu nañu Talla Ndiaye. rek parce que moo bëri ay soppe sa temps la ñuy jël jox ko say soppe kii mooy yaayam defe naa wala. waaw. merci beaucoup sëñ Babacar maa ngi ziar bu baax di ziar waa Leewtoo TV di leen jëfal bu baax ci invitation bi ngeen defal tey grand ñun séeréer yi mun nañ ne kii moom mooy sunu roi des arènes euh, euh, actuellement nii. parce que lépp loo doon xool ci Yaxya Jóob Yékini boo ko xoolee ci moom da nga koy gis te ñun suñu xel dafa dal nag parce que suñu mbër yar am na yar am na dal te bëgg na ñëpp mm, président Fans wax na ko léegi social soo gisee tey la Dame Royal tey toog fii te ku ma xam-xam ma ci Yaxya Jóob nii kon ku ma gis fii xaw sa xel war naa dal donc may wax rek ne wax nañ ko léegi nañ ko bàyyi xel te mi ngi ci kanam day ñëw te kenn du ko téye macha allah ñu ngi koy ñaanal raf cat képp koo xamante ne mbër nga gis ko ci ah, ci làmb ji muy ñëw rek bàyyi ko xel bu baax a baax ci incha allahu rabbi am nañ yaakaar bu baax a baax yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla jàppale ñu ngi ñu leen di bëggee yéen ñëpp nag di kontaan ci fans yi nëpp nëpp fépp fu nekk fu fans nekk rek di bëggee Grand Mbagnick ñu ngi lay bàyyi xel te di la wax ne jaajëf kontaan naa. lu ñu def si bu fekkoon yéen ngeen yàgg di ñëw àll ba ngeen gis lu ñu def ñii duñ si am place sax waaw yu waa Ndakaaru nag waa gars yi ñoo ñu mujjee xam sax léegi waaw àll bi su su ma ko waxee gis naa la ci àll bi man depuis daaw laa la commencé gis ci àll bi ak ren ma gis la ngay ngay ngay yëngal ngay yëngur yëngal mais ci biir mbër yooyu ngeen di bëri yéen simple bi damay gis rëg-rëg gis Franc ay ngel jon ay Ibou Ndiaye Diouf yor Doudou Sané mu leen dee lim du ñu jeex yaa ak ñoom seen diggante nu mu demee ci côté bëri. non làmb la rek xam nga ñun moom euh, man moom ku ma xam làmb man du ma tekku kenn man bu ma déggee kii rek. Euh, woykat yi wooyee rek man duma ànd ak sama soog man duma ma kenn man damay dem bëre yëngal làmbu ji jël ko wala mu daan ma final ma ñibbisi man loolu laa xam. Euh, mbë mbër yi koo ci bëri ñoom ñoom ñooñu ma lim koo ci ëpp loo bëreel. man ki ma si ëpp lu may bëreel ñii bëre naa ak ñoom trois ñii ma bëre ak ñoom ay ñaar daal su dee ngel joon ngel joon moom maa moom bëre nañ ay trois fois bëre nañ trois fois waa moom daan na ma ñaar ma daan ko benn waaw. bu dee franc la ñaata yoon ngeen bëri. non franc mosu ñoo bëri wa astafurlah mos niil fi mu laa fi mu laa waaw mos nañoo niil. Reug Reug mos ngeen bëri. non Reug Reug non non mosu ñoo bëri. non non. Ibou trois fois. trois fois waaw ma daan ko benn mu daan ma ñaar waaw. bu dee Doudou Sané. non Doudou daan naa ko trois mu daan ma deux waaw. général Malick. non général euh, euh, daan na ma ñaar ma daan ko benn. waaw. dafa am loo nga xam tamit dama ko gis ci yow ci làmb simple amateur yu bëri di ko wax mbër boo xam ne bu ñëwee si làmb day animé di animé rek lu lu ne ci sa ginnaaw bi lan la. waaw moo tax ñuy wax loolu ñoo ma xam tey ñuy wax loolu ñoo ma xam tey man ku ma xam ku xam mbañ gi rek ah xam ne bu mu duggee si làmb rek nekkatul ak sagom man bi may bëre poussière ba tey man nii laa mel mosuma changé. am na ñoo xam ne ñii dinaan damay màndi damay def lu ne men te loolu man sigar yàlla am dama la ko moom dama la ko doon bañ a wax sax nga dóor ma waaye dama koy dégg ñu ne boo ñëw da ngay am looy yokke say yaa ma gën a xam cigare sax duma ko naan soo tux cigare cigare duma ko tux du moins du ma naan sangara du ma naan ataaya billaahi wallaahi taala loolu sama deret la nekk su ma duggee si làmb man jeex na man amatuma mbokk man ni may yëngalee noonu laay bëree ba keroog ma yàlla bañ na ko sax ba gars yi dañuy am na ñoo xam ne dañuy naan sax kii nu muy bëree xam na ma day xaw ma nu mu day day yëngal ba sonn daanu loolu mosumaa dal mos naa dem benn su lamb sum kii seede la mag lamb jooju maa ko jël ni may bëree ni may yëngalee lamb ji noonu laay bëree ba jël lamb ji benn paa moo ñu fekk maa kii nii Jackson mii benn paa moo ñu fekk foofu ne ma yow kii day màndi ma ne ko mënu du sigara sax du ma ko laal mu ne ma da ngay màndi mu ne ko laamu ji da koo daw di daane nit ñi nii ma ne ko nuy laamel du waaw ban lamb nga jël mu mu marqué ak ban lamb nga ñàkk mu marqué la lool ba fi toog nii non lamb ji bi ma ñàkk mu marqué moom mooy lamb dimanche passé lamb trois millions yi amoon Dakar premier mai waaw premier mai mu lamb jooju moom ba léegi moom jógagul sax sama kii sama image moom parce que lamb jooju moom dama ma leeroon ni maa ko moom daf keroog ku la daan booy Faye moom ma daan boo man moom ma daan te dama blessé woon mais victoire du jaamur kenn du ko tilimal mais bi may ñëw làmb yi sax dama blessé woon bi may bëreeg sama quart de finale bi sama troisième tour bi boobu sama genou bi moo kii moo moo moo yëngatuwaat boo gisee bu ñuy bëree sa maak moom arbitre bu ñu doon arbitre gis na sama tànk bi sax dama doon lox gisu bi ma daanoo bu ñëw na yëkkati ma ne ma sa tànk bi day metti ma na ko waaw moo tax combat sax waaw moo tax làmb ji dama metti trop dama metti lool. boo jël mu gën laa neex. non làmb ji ma jël moom ñu ngeen ma neex moom bëri na trop bëri na waaw daa dem naa si làmb sa bëre daanu làmb jooju neex ma waaw mais làmb bi ma gën a jël mu neex mooy làmb januar waaw làmb januar waaw hmm, kii laa daanoon waa fii la waa januar Lamine Sonko waa januar la waaw hmm. lit boo ci duggee di yëngu di yëngal noonu ban waykat wala ban tëggkat mooy na ci làmb ji di way gara yëg boppam bu baax a baax non tëggkat yi yëpp buñ ku tëgg rek xam damay yëngu waaw mais am na woy boo xam ne moom bu ñu ko woyee moom xam rek mooy loolu. ban woy la. waaw mooy korale baage maafir kaan ngel naa te Diop jooti sengale woy boobu moom su ma ko moom sama yaram day daw. doo ko wayaat ma dégg ko pour da nga koy way way ko rythme bëgg nga ndil ma ko. e korale baage maafir kaan ngel naa yee daal moom moom yëngal ko waal. <laughs> loolu lu muy tekki ci wolof. non oh, wooy waaw ah, mënu ma koo tekki daanaa nga laaj gars yi moom. waaw nee na xaw ma lan góor xaw ma lan waaye daal mënu ma koo tekki mais woy boobu daal daf ma neex trop quoi. bu ma ko déggee daal sama yaram moom day yëngu nice. bu ko mbayang wala wooyee wala day faatu Adama jëli wala keneen. nday faatu bu ko wooyee mbayang bu ko woyee rek sama yaram day daw. billa du ma tuma ànd sama sagu sax. billaay wala même bu see fekkee may ngemb sax dootuma nekk. bu seen day tëgg ma dégg bu dee moomoo tamit moomoo sama doomu ndey moomoo nag maa ngi koy nuyu au passage mu ngi fi ñëw na sax si kii bi moomoo mu ngoom mu ngi fi xam naa gu leen sax doomu baabu ngoom nit ku baax la kooku moom bu tëggee moom damay kontaan xam nga damay yéeg sama parce que affaire mooy góore waaw waaw day góore te daa bëgg mbër yi quoi daa mbër bu taxawee rek xam na kii waaw lu ko war a tegal am nga xarit ci mbër yi. man waaw am naa ay xarit. comme kan moom mbër yëpp samay xarit lañu. non xarit boo xam ne homme de confiance laay wax quoi. waaw homme de confiance moom xanaa ordinateur moom ko moom sama doomu ndey la ko moom papam moo bëggal boppam. lu leen boole yéen ñaar yàgg ordinateur. Oh, parce que oh, magam suñu dëkk lay jàngale oh, ñu ñëw nekk dugal ko samay loxo papa. waaw waaw magam Moussa Faye maa ngi koy nuyu au passage ordinateur la maa ngi koy nuyu. waa après mu ñëw fa lañ jëlee coloré mu yóbbu ma seen dëkk ma bëre ji foofu jël fa làmb papam toogal ñu ni ma toog mun ne bu leen làmb boole yéen ñaar moo tax bu ñu dajee maa moom xam rek mu bàyyi ma ma dem. ma ngeen bëri. waaw mos na ñoo bëre film laa mu may ma. may may yoon. waaw mu non du yoon moom may na ma foofu film laa ko waa ah. waaw waaw. su ma ñëwee ba tey damay des foofu ah da nga ñëw ci làmb ji surtout li affaire frappe bi gars yi da gis Yékini Yaxya lu ngeen bokk da lay yóbbu ci ñu lay ñaanal wala da ngeen di waxtaan wala qu'est-ce qu'il y a sa digganteeg Yaxya. non Yékini moom damay si moom damay roy si moom lu bari. waaw même maa moom dañuy déggante lu bari sax même sama combat bi passé rek bi may ngemb si jour boobu sax. Oh, bu xanaa gaa yi ñoo ko seetlu sax bi may waaj a ngeemu si moom moom laa doon waxal si kaw kii seede na ko maak moom mu may woo di ma eh, waxtaan lu bari damaa pare nii nii laajal ki di yuuxu si biir néeg bi mu ne leen gars yi yóbbu leen yi après bu ñu si biir làmb ji sax après woo na sama mag bi Moussa bi may daw noonu si biir làmb ji woo na sama mag bi ne ko waxal mbañ mu wàññi mu mu kii quoi mu dal quoi affaire yooyu waxtaan lu bëri affaire yooyu sama nit la moom sama nit la moom nëbbu ma si dara daf ma bëggal boppam. waaw moo ma bëggal boppam. léegi su ma ñëwee ci lutte avec frappe bi six combats six victoire sa combat bi mujj laay ñëw kera dañ ñëwoon mbiru séeréer mënu ñoo xeex nga indi bagaar dóor waa ji mu daanu nga jéggi ko dem. waaw mooy li ma la waxoon keroog signature bi rek fi ma teg sama bët dukkee fi ma teg sama bët te séeréer yi dama leen a yoral bor dama leen a yoral bor bu rëy sax billaay walaay fi ma teg sama du si Max yi maa ngi koy nuyu si au passage nag di ko ñaanal jàmm mais fi ma teg sama bët du si moom waaw. léegi su ma la laajee lutte avec frappe bi foo ci bëgg dem. non man xanaa roi des arènes rek man jël roi des arènes bi fay séeréer yi seen bor loolu rek laa bëgg. incha allah mais actuellement nii sa yaram ku muy laaj. non gars yi kay xam nañ lu mu wax xam nga yi dañoo tàmm benn affaire ñun ñëpp ay xale lañu. comprendre nga bu bu ma nee tey man man aso mi laa bëgg a bëreel tey aso ne gis na man laaj naa ko mu ne comme man maa ko soxla mu aj pili bi. dootul nangu bëre te loolu mbëri loolu la ñu war a bàyyi ñu ma war a bëre ñëpp ñu ngi fii ñoom euh, bébé julle ah, ñoom euh, maama Lamine gars yi gars yi samay adversaire lañu mais nañ ñëw ñu bëri ñoom gin bu yoof gars yëpp samay adversaire lañu sama adversaire yi bëri nañ si arène bi waaw. ñu yaa ngeel joon ku leen tëggoon avec frappe bi ngeen bëri. non ngeel joon moom xam rek ama man moom soxla ma booy ay mbëru mbapat yi gars yi nañ ma jox si booy. ngeel joon kay mbëru mbapat la waaye benn yoon la daanu. benn arène mais bokkuñu yoon. est-ce que da nga ragal. non yaa ragal yàlla te maa mujjee si kawam ni maa ko jàpp Adrien Senghor tañax tañaxu daan ko. tañax tañaxee. tañaxee ko daan ko kon kooku xanaa man soxlawu moo ko. bilaay walaay man ñoom franc la sax laa wax ñoom franc ñoom góor a soog ñoo ñëw samay adversaire nañ ñëw ñu bëre. waaw man bañu ma kenn mais ay booyu séeréer yi moom mbëri non non ma jox si booy si kaw rek. école de Boy Niang nga nekk mm, ca Pikine sa relation ak Boy Niang. non ñaa moom kooku moom kenn la si waaw kooku moom daf ma daf ma dafa mel ni maam mu ñoo bokk ndey ak bàyyi te daf ma ko woon ma gis ko yaayam woon ma ko papam woon ma ko ba bu ñu àndee maam moom sax dañ ma koy laaj kii lu ngeen bokk na da ngeen a bokk ndey ak bàyyi billaay walaay talaay fu ñu ànd maak moom dañ ma koy wax waaw dañoo bokk daf ma bëggal boppam maa ngi koy ñaanal si combat bi mu dem yàlla may ko ndam bu seedu jëm ne nañ mooy combat bi gën a dëgër jëm daan bëri yow yaa ngi gis ñaa yéen a ngi liggéey defe naa est ce que ñaam yi pare na pour daan la dëgër wala foo teg lii. dama koo xam rek. dama maa xam qualité am rek. ak yéen ngeen di bëril di. waaw xam naa ko moo tax ma ne la combat bi moo si ëpp coow mais moo si gën a yomb si combat boo ñaay. yomb ci dóor mu daanu wala yomb ci songu daanu. si bëree bëree dóor mu daanu yëpp. da nga kon sa mbër da ëpp doole Lac de Guiers. fuuf du moromam sax. fuuf. Hmm. waaw bu dama ko mu koo xam. boo ñaa yaramam benn dopage nekku si. day entraîné naturel. waaw day entraîné naturel mbër bu ko gën a ñeme naa waa ne mbor bu ko gën a ñeme entraînement tànk gisuma ko si arène bi. amu fi Grand Mbagnick am na idol waaw am naa idol Yékini mooy sama idol waaw Yaxya waaw. Hmm. léegi nag dañuy xam naa dañuy dem ci terminus bi jeexalukaay bi Grand Mbagnick lan mooy métier man dama doon karo de mais instant yi bàyyi naa quoi maa ngi si làmb ji quoi. waaw waaw. am nga gel non non aw ma gelle. ngay gel rek nga ah. <laughs> aw ma gelle aw ma gelle. sëgg na aw ma gelle. aw amagu ma gelle dañ lay mere lii écran la de. non amagu ma gelle instant yi moom mooy loolu nañ ma bàyyi ba si kanam rek. nañ ma bàyyi ba si kanam rek. amul koo xam ne yaa ngi koy xool nii di ko bàyyi xel quoi naan ëllëg après. non xanaa doomu Cumba bay kay booy bu ndaw boobu kooku daal laay rêvé pour takk jabar booy bu ndaw nii la toll. mu ngi si suuf sayu. waaw. <laughs> am na solo nee kook lay bàyyi xel kon nañ bàyyi noonu waaye xale bu jigéen damay bañ rek xol bi jóg waa ci li nga wax nii quoi xam nga wóorul. waaw dala maa ngi nuyu waa kër gi fi ñu nekk nii Lamine Thior mooy nit ku baax si man nit ku ma bëgg xam loo xam ne lu ma xewle sax fu moo ko mën a yow mu ne ma ko andi ko sama kër. ak jabaram maa ngi koy nuyu bu baax a baax Sumba euh, ba koo xam ne daf ma bëggal boppam sama affaire sama soxla soxlam la. jab jëkkëram bi tamit noonu la. waaw ak aada bi ma la tudd léegi te mu nekk États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, ak Mitterrand Mitterrand Mendy sama coach bi mu ngi France ak euh, jabaram Anna Pereira maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Géejawaay tamit waa fan si xam fan si club bi nekk Géejawaay maa leen nuyu bu baax baax waaw ñoom daraan ñoom Fatou Xaar maa leen di béggee bu baax a baax bàyyiwuma kenn waaw fépp fu sama fan si nekk rek maa leen nuyu bu baax a baax. foogale séeréer. waaw moomoo tamit maa ngi koy nuyu bu baax baax. waaw moomoo waaw moomoo sama doomu ndey la maa ngi koy béggee bu baax a baax waaw ak euh, Cissé Ngane maa ngi koy béggee waaw si <laughs> maa ngi koy béggee bu baax a baax gars yi yëpp ñoom aale aale xam nga maa ngi koy béggee gars yëpp yëpp samay gaañ la maa leen di bu baax a baax nag ak sama yaay bi nekk no Mermoz waaw mama Ndeye Marème Fofana maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw waaw fogole seereer mais simna den a paax ama to ñaanana den a ana ciya den leya den ndoko ɓiy grand mbañik na simna nuun a paax a paax i simna xarites doomu ndees Boucar Dione bu Reug Reug maa ngi koy nuyu bu baax a baax au passage di ñaanal Reug Reug yàlla may ko ndam si combat bi waaw di ñaanal ñëpp jàmm daal sama fans yi yëpp maa leen waa mari yëpp maa leen nuyu ñoom Faly ñoom El Hadj ñoom Moussa bu nekk Espagne maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Ndig Fall tamit maa ngi koy bëgg bu baax maman Angèle Fall tamit sama yaay la maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw moom moom maa ngi ñaanal papam yàlla may ko wér waaw xam nga rek waaw yàlla fëgg boppam mu tane bu baax a baax moom moom nit ku ma bëgg la waaw ñoom Moussa Blues gaa yëpp waaw puujake mar waaw maa leen di bëggee bu baax ñu nekk Espagne maa leen nuyu bu baax a baax bàyyi ma kenn ñëpp maa leen nuyu waaw léegi nag dañu ànd ak Ecotra moom day tabax ay tali tabax ay forage maanaam lu jëm si wàllum tabax daal moom da koy def mooy ànd ak ñun chaque jour jox ñu pañe ne ku ngeen seeti rek na ngeen ko ko jox waaw instant yi moom maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp di nuyu sama sëriñ Serif Alwali doomu Chérif bu naana maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jaam yàlla ko fi yàlla bàyyi di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu di nuyu xaadiri yëpp di nuyu sama mbokku murit yi xaa tijaan yi laayeen yëpp bàyyuma kenn bépp tarixa bu ne Sénégal maa ngi koy nuyu bu baax waaw ba si chrétien yi yëpp waaw parce am naa si ay xarit yu bëri sax waaw maa ngi nuyu booba di nuyu Diop monsieur Diop maître Diop sama maître boxeur bi. waaw mu ngi yoof koy nuyu bu baax tamit di nuyu jabaram xaddi maa ngi nuyu ñëpp daal. kon Talla léegi da ngay indi pañe boobu tey jaww jóg sax dañuy toog nii et eh, yow la ko jox. Ecotra nag gis nga société la boo xam ne boo demee jam ñoo gis nga ni ko président Macky Sall def Ecotra la ci àndal forage tali courant bu ñuy xëcc tabax lu mu mën a doon rek ñoom ñoo ci man ñoo ànd ak Leewtoo nag ak Babacar ak Talla Ndiaye ak Momane ñëw indil la pañe bii ay bagages a ngi ci am naa fii boole def si koor gi moom macha allah quoi looy wax waa Ecotra. non kontaan si ñoom rek kontaan si ñoom di leen ñaanal rek li ñu jublu si lii yàlla yóbbu leen si kanam ñu dem ba nekk si ay entreprise entreprise xam yàlla dooleel leen lépp lu ñuy saaku rek yàlla defal leen ko ko waaw di kontaan leen kontaan naa trop kontaan naa trop si lii waaw. kon Talla Ndiaye ngi nii Grand Mbagnick ngi nii. ay supporter am ak fan sama ngi nii dañ leen di jox dig daje rek beneen yoon di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm mais jigaa ngi nii borom jigéen ñi moom jigéen ñi la tippoo nee